léegi nag suñ borom moo ko yor te moom la njëkk a bind sama doom yi avant dund moo garçon bari nañu lu sëq ngeen ko daan dégg yi ci rajo ñuy jox wa rahmatullah mbooloo mi ginnaaw ci yoon bu tedd bi alayhi salaatu wa salaam tey jii yaakaar ni tiis bi nga xamante ni dal na suñu kaw waaye dal na ci kaw njabootul làmb waaye dal na ci kaw monde sport bi waaye tal na ci kaw diine parce que Gaston moom moo tëddee woon noonu man mii taxaw yaakaar naa ni teel na maa jël yëpp moom ma nekk xale mu defa man tour du Sénégal ci kalaaf ñu am lu bari loo xamante ni daan nañ ko jokkalante ci mbaax waaye maa ngi leen wax ni tey jii kii dem mbokk du ko jam askan du ko jam dëkkandoo du ko jam man nitam du ko jam tey fa mu nekk ndax ku nekk xam na ni ak défendre ay intérêt ak wóole koog dëkk ku ko xam-xam ni lu mu la war a wax dafay dafay taxaw wax la ko engagement bu mu war a jël day taxaw jël ko kon Aminta ñu ngi lay jaare Gaston xam nañu fi mu tolloon ci yow tey ji yaakaar naa pour ñu jox ma kàddu ma taxaw fii di wax te su may bàyyi nekk dafa am lu ñu séqoon man ak moom ci relation bu rafet ci kóllëre bi mu nekkee ci biir feebar du toog semaine boo bis boo xamante ni yëkkatiwul téléphone am woom kon bakkan xel dal na bi ñu gëstoo mu am taaw bu mel ni yow nga taxaw taxawaay boo xamante ni taxawaay bu rafet la gunge say rakk boobu ba léegi ku nekk xam na ni bi sa papa ba léegi ñun ñi la jigéen xam nañ mooy amoo jot da nga nekk ci yitteem rek di ko dox kon nag loolu tey ji yàlla na ko yàlla suñu borom xare àjjana maa ngi gis ñëpp le président du Diagne Cekko ñu ngi lay nuyu Abdou Aziz Ndiaye walla ji ale ku nekk xam na ni taxawaay bu mu am rek bi mu ñëwee def na ko fi moom it ñu koy ñaanal fan nañ la asalaamaaleykum wa rahmatullah kooku mooy buur wala amoon relation buur doy waar ak muy président Abdou Diouf mu ngi woote yëkkati ay seede président nee na mu ngi leen di nuyu le président Abdou Diouf mu ngi woote nekkoon le deuxième président de la nee na mu ngi jaaree Sénégal yëpp nee na moom président Abdou Diouf mu ngi jël jaalam di ko teg ci loxo Aminata Mbengue Ndiaye nee na ak sénégalais yi fi teew yëpp nee na moom Gaston bi dem de doomu nijaayam la moom président Abdou Diouf ànd naa moom bi mu nekkee président de la président bu Sénégal nee bi yàlla ñëwee tamit nee na mu nekkatul président de la Gaston nee Gaston bi ñëwee Paris nee na mu ñëw set si ko waxtaan ak président bi Diouf soo ko dellu nee na président Diouf bu soxlaa Sénégal mu ngi woote waat mu ngi mhm. ne président Abdou Diouf di def ay témoignage lu ñu bari xamul woon ne que ñoom ñaar mu bàjjan doomu nijaay lañu woon eh, président nee na mu ngi leen di président Abdou Diouf nee na yàlla ko yàlla suñ borom xaral àjjana moom Gaston Mbengue. nee na mu koy jaare xaritam rakkam Aminata Mbengue Ndiaye. nee na moom. xale xaalis pour muy topp. nee mu ngi ñaan moom président Abdou Diouf yàlla mi nga xamante ni dara taw ko yàlla na yàlla def jàmm ci biir askanu Sénégal. nee na kon ñu jox ko aminte mu. jigéen dem sàmm koo xam-xam tamit bu rafet rees bu rëy ba nga xamante ni moom mooy jaamu donc nag jaamu yëngu lu yàgg yàgg yàgg dañu foog ñu di def xool bu baax suñu digganteeg suñuy nawle waaye suñu digganteeg suñuy morom xam bu baax ñu doxale ak ñoom ndax ëllëg a tax ak nettali ba donc loolu leçon pour ñëpp ndax dara képp koo xamante ni yaa ngi am ak ñaxas sa morom war nga gaaw profité euh, xool noo ko defaree xool noo ko changé donc ma ngi noonu gis ngeen Aziz Ndiaye ma ngi noonu toog ki nga xamante ni moom mooy euh, grand serigne bu Dakar donc ma ngi noonu toog Youssou ndooy jaraaf jaraaf la wala ok Pala Mbengue effectivement Pala mbeng bi nekkoon ci ci ci ci ci ci làmb ji donc frère la ci ki nga xam moom mooy grand serigne de Dakar Youssou Ndour il est juste derrière ki nga xamante ni moom mooy euh, Aziz Ndiaye donc euh, moom aussi ñëw na donc ñii ñëpp teel nañoo jóg